fekk fi ne kuy diingat kami diingata ko jiitu tey nag ñaari kuréel am doon ku nuy wax baa baa yow ngay waxee rek li ma a sant yàlla nag mooy yow bokkal ci ñi ñi nga xam dañ leen di wax ñoom wax dëgg yàlla ndaw loo xam ne jamonoom manoon naa teylu jël temps ne ci leneen te pourtant day bari na ndaw ñoo xam ne lañ nekk neexul yàlla mais dañ leen ciy favoriser dañ leen ciy favoriser léeg-léeg nga gis kuy dund sëñ bi ne ci béréb xat fa lool sonn fa lool te la ko yóbbee mooy sëñ bi muy dund rek keneen ne ci leneen kii de foo jóge réputation la jóge foo jóge damaa demoon daayire foo jóge maa nga woon nangam ah seen daayire da nga tarde de nangam nangam kenn moom ñëw daal di simi daal ca buntu kër ba mu camembert mu ne daa demoon entraînement ñu di ko favoriser kii reer sol bàyyi laatam bu baax wi kolam foo jëm cant ya kii laal kiloot ba tubóo ju xat taxaw ci télé bi ku muy seeti faati wala mëti ngeen ñibbisiwaat yéen ñaar kii la juralu yiw ndax guddi googu boo faatu woon xam nga ne kii demoon ci xaside ba ñëw selam la gàddu la moo gën a dalum xel ki newoon ci leen gàddu la ku yàlla may doom ju nekk ci baax da nga war a sant yàlla da ko war a sant yàlla ku yàlla may dëkkandoo bu mel da nga ko war a sant yàlla jàng yii léegi-léegi nga di ko eh, ay rajo yu xumb yi da mën a jàng lool foo na te léegi-léegi nga gis sabar gog ndënd moom yëngu boo xam ne mooy gën a xumb te kenn du ci wax dara waaye ñi ci nekk ñooy am fulla man damaa bëgg ku de jërë de man damaa yàgg sakk ba may kosse yii si xiw ma tax mooy dégg ay kenn la ay ree damay jàpp man ba may kosse dama départ rek kos benn bërit laa wéy rek te te saa yu ma yeewoo damay ñaan di gën a di gën a rokkosu barki xadim rasul dina dama koy ñaan naa gën a sakk ci sëñ ba gën cee rokkosu ndax dangay yëg ne boo ci dee rokkosu la day gën a baax ah fi ne ñëpp te te ah, li sëñ Abdou Samad sëñ son yi bu dama ne ko man a sëñ bi dañ maa jàppee dof mu ne ma yow da nga ne li tax sa mbir metti mooy da nga cee boole doon dof ba muy këyit walla moo xam jërëjëf ndeysaan lee dégg loolu ah rokkosu nga am addi rokkosu ak sakk dañu am benn dafa am benn jamono ñuy réunion boobu ñu bëgg maa invité ci benn béréb ñu war maa invité benn waaye daan na ñuy mën ñuy invité ñu ne ñu ne Gana Messere lañu invité ñu toog di waxtaan ñii kii benn waaye na non c'est que Gana moom bëgg naa ko mais kooku dafa satik daal est-ce que duñu wax ci sëñ bi dara fi mu fetal na ko yooyu léegi sax sedd na léegi sedd na ndax léegi moom dama comme li nga doon bëgg combattre nga ko ba baax na boo waxutoon sax bu ñu la gisee xam loolu loolu nag boo ci nekkee da ngay am fula am na benn shérif bu ma dajal fan yi benn conférence ndeysaan dam ci Pékina ah, mu ne man dama laa bëgg maanaam mu ne ma taalibe day gëm sëriñam mu ne ma taalibe day gëm sëriñam te boo gëmee sa sëriñ mu ne Cheikh Amadou Bamba ku ko gëm Rasulullah nga gëm ndax fu mu toll rasulullah lay wane ba noppi door a wax lim am ci rasulullah kon loolu ndaw ñi bu ñu jëmee ci sëñ Tuubaa rek jub bu ñu jëmee ci sëñ Tuubaa baax te solution mooy sëñ Tuubaa loolu moom defe naa lu ne réew mi dana ko mën a sikki sàkk waaye ren ji bokku coog daaw leer na leen nag ñi jekki ree ma fa Tuubaa <laughs> Cheikh Mountakha war na gaa yi mbir ndeysaan damaa dégg mu ne sëñ Muntaxa mbirum sëriñ bi sotti na ba noppi ku ku ku defaru mënu koo yàq waxuma ko yàqu baa nga bëgg a yàqu kenn mënu ci dara sëñ bi loolu dal nam xel nag ba ma ko déggee keroog damaa gën a dalaat fii xaat ndax song yi daa bari te comme amu baatinu mën a xam li xew tiit rek ngay def waaye bu sëñ bi ñëwee rek sa xel dalaat kon nuy nañ fexe ba kenn ci nun bu mu doon fenêtre bi ñuy jaare ba yàq kenn ci nun ku ne ci sa jëm ci sa waxin ci sa doxin sa comportement lepp nang ko tek ci yoon wi wara jaar jaamu yalla liggéey japp sa njambur dundu señ bi mourid mom man na baña am ben temps li nga wara man ci xaside yi da bari li nga wara xam da bari te lol lepp yitte la laaj kon jere ngeen jëf na ngeen ma balax ci jotaay bi yalla xam na ne dama doon wëndeelu nii rek ci waxtaan wi sëñ Mor ñii sax xam nañu ni man da bu bu ñu ma dalal fu jege ay jàng tey sonn naa lool yow xam nga ko sax yow hmm? barke Seexul Xadiim xéewal yaa ngi fa indi falaa ko bàyyi ndax man li tax samay jooy ci sëñ Tuubaa di metti mooy dama koy dama koy yëg di ko ñeewant benn da nga koy ñeewant ci lim daj ak nim la def tam mënoon a ñàkk ni mu la def te mënoon a ñàkk te yëgoo loo ko defal ba tax mu def la ni te bët bi set ngay def lu ko yàq te du ko yàq xanaa fi ne ku xamoo ku jàng ci sëñ Tuubaa rek doo doo iñaan doo siis doo ñàkk jom doo bon ndax kenn ku ne ci noonu lim la def léeg leen nga jàdd bu ko def lool da ko waroon ne futteet nangu waaye day mel ni rek dalay sagar rek di leen sant ci jataay bi ni ñu ko waxee woon léegi won nañu ma léegi fii waa daaira muxaddamatul xidma maquette bi ñu ma woon ci juma joju ñuy wax ci dëkk bi te defe la 10 wara doon post premier père bi ñaan yàlla liggéey bu señ bi ma sa gërëm rek yalla na ci bobu tabbi and ko sunu général bi nga xamné no mom ba aljana rek muy señ salim Touré nga xamné dembu ci 3 heures 3 heures yakarna 3 heures 3 heures du matin mang koy tuddu fekk ma ne ci auto bi ñu rombu ñu rombu ab bref fi ñu fay yëngu-yëngu aduna di tuddu seigne salih Touré di way di way seigne salih Touré ma ko ah, li ngeen di def de xawma neex na ñi ngeen koy waxam deet waye kan koy wax de mom neexuko mom seigne salih Touré dal bu ko ko bëgg jot xasida ngay jin tax mom fa yalla la di ko manako ne ko mana ko yoonu murid mën nañ ko jange ci mom ci deggu amu fit di jambar manam limu réussiral seigne touba ci gox bi rek bu ko bu ko seigne touba fayone seigne Saliou Touré doy na liñ lepp man nañ ko dencat lolu rek man nañ ko duga aljana li ci dess man ko jëfe wallahi waaw leen góor tooli Seex Bamba booyul fi Cees dafay war ñu koy way lu gétti ngalam ka tooli Seex Bamba booyul fi Cees dafay war ñu koy way lu gétti ngalam ba muy ndaw la semmal ña buur jiitaloon amul sow ba penk fooy gis kamam kamalal jamaalu minal buxuuril kaamili séq sab na jant bi fenk kaay leen déglu ma dama yéene way nitu yàlla fees dell gépp wet kàngam ya lañu doon yóotu moo ni ko cas dama wutiwul alal wootewul wilaaya dafay ku mat ku ko sopp raw ku ko bañ torox lii leer na ma fasu jaamu yàlla la war baraw ñu ko jiitu woon ma ni boo xamul ki mooy sagub ture ak xuma mooy jant mbaakol ak kajoor feqee bawal niital na penkook sowu fenn du lëndëma dammeel ya boof nañu ci ronam tey sàkku ku mu fat nga fàtte sa démb moo amee xikma nañu jox ko xol yi mu yéege ruuy fa bamba ne ku ko sopp raw ku ko topp mucc ci ay duma seex bamba mooy ki ko tëbb may yi mu màndalee ndam laa ngi nii may way bu kenn ni dégguma mooy jant mbaakol ak kajoor feqee bawal nii tal na penkook sow fenn du la ndëm euh, yàlla ko fi yàlla yàggal ndax taxawaay bi rafet na dal nam xel ci njambar ak fit ak xam-xam ak ndigal kon ma ngi leen di gërëm bu baax sëñ Aliou noo ngi sant bu baax di leen di leen jaajëfal yéen ndax euh, Thiès sama dëkk ndax li tax mooy dama fee gis kakk kaki xam ne ni ay ay kakki sëñ bi yoo xam ne maanaam saari saari sëñ Aliou mi sëñ Aliou Diop ñoom ñii maanaam sëñ Aliou Diop fi ne bis bi ma ko jëkkee gis dama ne waaw man kii moom lu xew xanaa nag am malaaka da dëkk ci wet gi jëw fii ci karang ji macha allah yàlla na yàlla nangu lépp waaw noonu rek nañ ci gën a dox bu baax kon sañ Ablaye Ndiaye yow it noo lay sant bu baax nii la waa Makarimal Akhlaq santé nu it noonu lañ lay sante amul benn yoon bu ñuy ñëw cees boo xam ne jëm si nañ fi te sa teraanga jiituwul ànd kook noonu moo xam danga koy jëf ca fa ñu jëm wala nga ñëw jëf ko ci suñu jëm loolu amul benn yoon boo xam ne loolu amut waxtu wu ñu la waxee ne ñoo ngi ñëw Cees it la ngay jëkk a tànn mooy naa xool béréb ba gën a jelloo ak moom ma yóbbu ko fa di boole sa alal te ñëw noo bokk wasiila sëñ maam Cerno kon noo bokk Cheikh Awa Balla waaye sa bëgg Serigne Touba nag loolu da koy wone tey jii semaine bii yëpp mi ngi wootee tey sax dama ko bàyyi ci biir ba mu yéex a xam ne maa ngi Cees <clears throat> ne man fi laa fanaan biig bi ma jógee ci émission Touba TV bi rek fii laa jubal si waaye maa ngi woon ci roq yi ndax léegi ay sëñ Aliou Diop ñoom ak gars yi mën naa fee ñëw sikku suut te duñ ma yëg làqatu fii waaye bi ñu yëgee ne ñëw nañu ci ngoon wax dëgg yàlla coono bu nekk def na ko kon maa ngi koy sant te di la ñaanal ndax lii ni ñu seere fii ci yow rek loolu rek am solo mooy nga dëkk aw nit ñu doy la di la gërëm te lépp jëm ci fi Serigne Touba sant yàlla la may sama xol sedd na ci Mouhamed Silla mii moom sama xarit la taalibe Cheikh moom dafa yiw sama waay la léegi dafa am beneen taalibe Cheikh boo xam ne yàgg Pape An Pape An woo na ma di kaas wax naa ko dem ci télé bi ñu wax Pape laay Pape Laye neen dafa bëgg a wut kër sama wetu kër tuuba léegi kooku ci laa bëgg a branché wu tuuti ndax euh, moom Pape laay mais Pape An nee na loolu du mën a sotti waaye yow ngi lay sant Euh, nit ku dal nga sa émission laa fi jëkk ñëw ci émission télévision yi ci ci Thiès TV waaye nag relation boobu lañ am ku baax ku mu xam ci dëkk bi daf nuy boole keroog bi ma Alaaji moor di jox terrain boobu fay titre foncier yi ak yépp nga xam ne loolu ci yow mii la jaare kon maa ngi lay sant yow wax dëgg yàlla di fedd li kóllëre gi bu baax di balu ñëpp ak ndax lu baax Sëñ Tuubaa moo nu digal ne bu la nit defelee lu baax na nga ko sant fa saasa sant gi moo war a am sunu diggante te ngeen baal ma àq yéen ñëpp man nag baal naa leen àq ci lépp lu dox suñu diggante ci lu ma yëg ak lu ma yëgul suñu àlliwu yow daal teg naa lépp ci sa ci sa ci sa ci sa loxo bu ko defee yàlla yàlla boole dimbale ñoo ngi sant jawriñ yi di leen jaar sëñ Fallou moom it na nga koy gërëm bu baax sëñ Fallou jërëjëf li nga wax léegi mooy li am solo xol moom xol sax sëñ Tuubaa da caa mënta ne ma nepp borom di mel neneen koo gis xam nga fi ne ne ci sëñ bi damay wax ne ne ci sëñ bi ak sëñ bi ne ci yow bokkut fi ne boo nekkee ci sëñ bi man ngaa ami wataa ki kër ak yépp bu sëñ bi nekkee fi yow nag sab xolay defaru kon yàlla na sëñ bi ne ci noonu ci barki xaadimu rasul kon jërëjëf signal li bisimilah waaw kaddu yi may wax sëñ Fàllu yu gàtt lay doon rek ci tuuru bokki tali bi fi teew yépp ñu ngi lay sant sëñ Gana Messere wax dëgg yàlla sunu xol sedd na ndax saa buñ ko yittewoo ci dëkk bi ngir mu ñëw fi ànd ak ñun ci liggéey bi muy defal sëñ Tuubaa daf ñu koy yàppandal lool mu jëmm joo xam melokaan wii bokki taalibe yi am ci ndaw ñi moom liggéey na ci lu baree bari sa waxtaan yi nga daan def ca tàmbali ba ba nëgë waxtaan yooyu bari na tey ñu mu def ci ñoom lu bari ba tax ñu gën a dëgmal sëñ Tuubaa kon ñun waa Cees gépp amee nañ ak cant te sant nañ la wax dëgg yàlla nun lu waay wax ci sëñ Tuubaa rek dañ lay déglu waaye say wax kenn du ci jaar di sikk dara ci sëriñ bi dimension bi dana fa nekk waaye di ko lay taaye xam-xam doo yàkkamti di nga indi bayit yépp lépp leer ba boo jógee fu vidéo mën a jaar kenn du ci sikk dara te loolu daf ñoo ñor ci seen Tuubaa ndax sëriñ bi dañ koo bëgg te bëgguñu ko ci wax dara lu mu mën a doon ñu seet ko gis ni kat am na foo mën a jaar ba mën a wax kon ni nga sàmmanteeg wax ji di sàmmanteeg waxi sëñ Tuubaa yi ba léeg sax nga yëg loo xam ni wóor nañu ni bu doon ko mel ni man la damay taañaaña rek dem waaye da ngay maîtriser wu sàmmoon lépp ba ëllëg woo mën a jaar ñu gis ni teg nga lépp ci aw kon ñu ngi lay sant ci tur dëkk bi kilifa fi teew bari na xëy na sax am na ñu ma gën a yell ci jël kàddu sant la ci tur dëkk bi waaye sama diggante ak yow sama diggante ak makaarame axlaax ndax keroog bi ñu la yittewoo man maa jëkkawoo sëñ si la woo la ginnaaw bi sëñ Alaaji Njaay àggale lépp ñu bég ci lool kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal fan ak wér-gu-yaram bu ñu fàllu والبقاء دانا فداني بما به فدانا باق مميت والبقاء دانا قولي قول يحجب المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لبانا الفلاح الذي أخدانا الحلم والحمل والأوطان دخل شكور وكفى الشيطان كفاية الدنيا ألانا قلب الذي حصدني فلانا لأوقظ بي ورم شانا وزان لي إن الغدا ما شانا لك وجوهنا إحسانا مرحبا حمى قسلانا ليتصفي العمر والجنانا ذهبني بلا حنل الدنانا ظللت حبا في البحر قد حادانا يا من بالنبي أدانا يشكرك لا حم يا من عفيت أني قد لقيت لنقانا وسيلاقي الوقت ودخانا جئت البحور ميدا لي مانا بالمنطقة أتت للزمانا جزاء ربي راد للسلطانا مع الأمين والمنى أعطانا أشكره ولم يزل ديانا شكرا الذي نأشى خيانا ناديته وبالمنى فجانا وبالنبي أن نستني مجانا الحمد لله الذي هدانا لنا وبالأمين قد فدانا محمد وحب للقرآن شكري إلهي ولي آنا نفع شكوكي غادني تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وأبل الإسكان وطيب الفؤاد والمكان له قطابي ومحل عصيانا كما كفاني من حوى طغيانا خلقت لي يا مالك الأحيانا يا من محل القطأ والنسيانا وجهتني ما قادني برهانا يا من ينور بي الأذهان مدت لي ما زادني إيقانا يا من قضى موتي لمن ألقانا من قد قلم وكثر الألحان ذل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أظهر الحدوانا أنت الذي ألمت من هدانا بمدح من كتاب أدانا ليرد من ظلمني فلانا والتقمت من يا مولانا مدم قوتي صافيا جلانا وللأمير قلد القلانا يلاح يا من لم يرى رحمانا أيا رحيم بأدم أوانا نفيت من أحرجني مجانا بمدح من قد لك سجانا مدح النبي المنتقى أقراني فسرت بشرى جملة الأقران حويته ما حواه سابقونا هدأني قوم مرافقونا مدحت وقادني أحنينا القيد الغر المحجنين مدحت وقادني أحنينا القائد الغر المحجنين محمد مكرم مكرم ذو حرمة محترم محترم وموت حبا من قرأ أقراني فصرت مأخوذا مع ديراني محى توجه أذايا الباقي ذو الأراضي الصب والطباق حضرته بمدح المصطفى محمدي خير رضا ان وفد سمدي محمد ممجد مؤمن مفضل وجمل مكمل محمد أفضل خلق الله متيم ومتيم الله محمد أفضل خلق الله متيم ومتيم الهوى قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض واتباقي أعادني الباقي من الشيطان أستغفر الله العظيم وأتوب الخير وسف الخلدان لي تفكر يا والتزما قلمي والذنوب توفيق الإقاد والإهام قد حبيا بما لو الدهام بدل لي اليوم بالحق يبو أعاذني ممن خلو وقيب لا يتوجه لنوي مذنب عن وكوني عبد الخديم قد سبت شكلني ميسر العسير مداره لي بلا مسير شكلني ميسر العسير مداره narjo na criação mais يتيم سسنا يلا